jàppug Birame Souleye moom it mu nekk seen collègue euh, ñu gis que ne euh, mobiliser ngeen comme un seul dénoncer le fait que euh, malgré mu jéggalu ñu teg ko loxo mais également ñu yóbbu yëf instruction mu mel ne une volonté de le de le maintenir en prison. xam nga comme ni ko honorable député Guy Marius Sagna wax rek instruction ku ñu fa war a yóbbu. mooy mhm. ki ñu jàppee ngay jaay bon. wala ngay def leneen loo xamante ni jàpp nañu am leneen lu ne ci gannaaw. Mhm. mais Birame Souleye li daan bu ñu ko war a teg ñu teg ko fa mais bu ñu ko yóbbu instruction rek alhamdulilah bu ñu ko yóbbu instruction rek am na leen lu ñu ci jublu lu dul jéem a leeral dëkk ci mm-hmm. te ñun jàpp na ne Birame Souleye li mu def acte grandeur mënu ko weesu mm-hmm. ndax moom yëg na ne ndax man duma ma défendre koo xamante ne taxaw na ne damay jéggalu mm-hmm. kon gëm na ne moom tooñ ne jéggalu na mais dañoo gis ne Birame Souleye li mu wax am na ñu wax lu ko gën a garaaw te kenn woowu leen nit taxaw na fii ne mbirum Ousmane Sonko mi donte quatre vingt dix personnes dañ quatre vingt dix pour cent ci Sénégalais dañ ci war a faatu mhm. nañ ci faatu mais daf yoon dafa war a def liggéey nit taxaw na fii ne Ousmane Sonko fii reyuñ ko réew mi warut am jàmm mhm. nit taxaw na fii ne képp koy olof jaar fu bon mhm. ñu wuta ko visa génne ko réew mi kon deux fois deux mesures am ci réew mi kuy dénoncé loolu nga war a dénoncé mais du propos Birame Souleye mhm. ndax ginnaaw moom mi waxoon jéggal ne ci topp nag mooy jéggal ko te xam ne nit ku dul juum amul mhm. bu doon ku juum rek ñu teg la ci yoon yaakaar naa réew mi ñi fi nekk ci biti ñi fi nekk ci biir moo ko ëpp fuuf ah,